ziyaara bu baax a baax di ko ziyaare eh, Sénégal gi yëpp waaye di ko ziyaare àdduna bi yëpp ndaxte Serigne Atou moom kenn ku ne xam na ne àdduna yëpp la amoon ak jëflante àdduna yëpp xam taxawaayam ci toolu Serigne bi eh, sànq nii sax ñu doon def émission ca ca bu gën a yaatu man ak Serigne Mourtada Bousso mii eh, yaakaar xam naa la jataay ba lañ fa rotal duñ ko mën a rotal fii fii moom dañ feeñal yéen rek waaye ma wax sax relation wu euh, sëriñ Atou ak Mouhamadou Mountakha waaye man sama relation ak moom yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ndaxte fii ñu nekk béréb bii bi ma sëñ Mountakha indee ci bu tarxiya ngir yéeneem gi mu amoon yéene ànd ak waa xisbu tarxiya liggéeyu sëriñ baa bi ñu nekk muy liggéey bu wér bu sel bu pësteefu liggéey jaayante euh, bis ba guddi ga ma euh, njëkk a fanaan ci daara ji fii laa nekkoon fii mooy building daara ji ma xam ko lool fee nekkoon eh, eh, waaw eh, xamu sp nekk ci kanamam daara ji yaakaar naa xam naa ko lool kon yaakaar naa ne sëñ Aatu tamit am na lu ma xam ci moom la ay ndaw lañ waaye nag jëflante bu rafet bi ñu daan gis bu koy jëflante ak ñëpp nekk murid sadiq nga xam ne ba ci man suñu borom dafa dimbali bi ma jokkaloog moom booba ndaw laa ak juróom waaye ba ba ci fanam yu mujj rek jokkaloo googu dafa wéy euh, ndaxte fanam yu mujj la ca sëñ ba doon dox si digganteem ak moom lépp daf man maa ko doon doxal bis bu ne daanaa dem euh, mu njëkk muy dem Dakar daanaa dem ba ca sëñ bi na ma demal ba xoolal ma ko ma dem mu rotal ay kàddu euh, waaye maanaam lam doon jagadi lépp teewul saa yoo accès li njëkk def mooy jaayante waat ak yeesal ak jaayanteem yeesal engagement wone rek ne tamit moom amul dara lu muy tiit amul dara lu muy ragal xelam dal na ci lépp ndaxte xam na ki mu àndal kon ah, sëriñ Atou moom ah, dafa dem rek euh, wàcci euh, noppalu ci waaye nag ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax ndaxte sànq maa ngi koy wax ci télé ba nee naa li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit bu faatoo ay jëfam day dok ba mu des ñett mooy nga bàyyi fi xam-xam bu mën a jariñoo suñu aatu yaakaar naa li mu formé ci ay boroomi xam-xam te euh, dañu ci di ko ndax ndaxte fii daara la Hizbut Tarqiyyah euh, daara Hizbut Tarqiyyah la ñuy wax kër la kon ñi fi jaar ñëpp ñu ñu formé la ñu euh, ñu ñu def ci ñoom xam-xam la ba ci xale yu ndaw yi fi nekk ci école beeg ci daara ji waaye tamit mu def loo xam ne ñëpp dañ ci jariñoo muy loo xam ne sodaka jaariya la loo xam ne ñëpp ne sëñ aatu yaakaar naa bis bu ne Euh, nit ñu bari danañ jariñoo ci loo xam ne ci njiital ci njiitalam ci lañ ko taxawale waaye nag mu bàyyi ak njaboot goo xam ne mooy la euh, lislaam njabootu jaayante mu nekk ñu yaatu ñoo xam ne jiw yam daan tasaare sax na fu ne ci àdduna bi kon loolu lépp nekk loo xam ne war nañoo mën a tax ñu xam ne Sëriñ moom dafa noppalu ji rek lam mu doon liggéey dafa dem fayeeku ji waaw euh, kon daal ñu ngi koy ñaanal rek suñu aaral ko njaboot gi sàmmal ko njabootu boppam gii bu Hizbut Tarqiyyah waaye sàmmal ko liggéey bi te eh, a leen ci tawfiq te eh, am méb amoon yëpp suñu borom defal leen ak ngeen am ko wax fa gën a kawe asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf